jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi ngi fii ci Fimela fi ñu fi woo di suñu papa Manga 2 tegal xale bi musique xale bi xale yi musique bu am solo naa ni xale yi ñëpp fas yéene cee wane seen bopp waaye démb gis ngeen fële ca Fatick la jot a xew ci lamb lu traditionnel muy wane ni rek lamb mu ngi def ay jéego jëm ca kaw. mu ngay def ay jéego jëm ca kanam rawatina lu traditionnel bi ñuy sant di gërëm ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi baaxoo di seetaan Wassare Lamb Adama dañuy dugg ci biir xool ambiance xool bac xool culture xool cosaan xool cosaani séeréer dëgg-dëgg mooy làmb kaay dina mo sele ngi noonu ndeysaan ma ngay jëm sele mele aɗon jogui hol ya sese jegagani tamkade jibina ɗen e bisna ɗen on ɗi dokla fo merci merci mawɗo ko korna mais pas tout ko korna mais ɓenmino cinko o françois merci wiyam mbaru séréwamna cosana eje françois woni won gannaw noonu saɗe yakkar ɗo eje ay ca ñoom ñaar ña ngay lewaatoo lewaatoo ko dafay yéex nag Mansour leen fàttali père Manga moo ñu andi fii ci Fimela di dimanche le 11 avril 2021 1 million 500 la tegal champion ay jël sama xarit ba Lamine TV maa ngi lay ziar mbaa yaa ngi am jàmm ay ca oh Sadio Maye xale bi dafa mel ni bëggul jàpp François bi moom jàppante ak moom parce que différence de poids bi la te ñoom ñaar daw na diggante bopp eh eh François bi lu mu def jël na tànk ba génnaat ay dëmbat na ay fàqal na ko mu ko ndomb fàqal na ko mu rëbb ko mu wër ndomb mu koy sa poids ba da ngay dem

ñu ko daal na par tey réew mi ne fim la tey mi ne nongo na ay jambon bu mais foo ko gisoon aussi dafa doon yor melokaanu mboru séeréer muy organiser lamb bi tey comme moom lañ denk boree liit sans frappe mu organiser lamb bi en tant que promoteur ak ñi nekk ci ginnaawam mu ne mbor yi nga xam ne def leen woo te ñu ñëw ñi nga xam ne ñoom la yàlla di dogal ñu dem final ci poids lesé ak poids lourd def leen bëgg mm, euh, ay yére yoo xam ne dañ ko doon man xàmmee mboru séeréer ñu ko doon naan accan mboru séeréer i mbir séeréer a andi tege o fapo roko haccan lipo hi payɓal liko o sacor liko ha tafuke o roko hannana roko a ñañal loko hi laar rokohi ñang siko saacor sikki ñal i ñal itam no ɓay a sikkeege fop a fog a fog ke andoona i mbir seereer a anditeege ten ndaa itam comme ken fop jegateer manga fi'a ka taxna bo cosaan seereer a waag o ɓaat o numtooxiid ngoor ke and eerna ke refna a cang euh, a mbaag no an te décorer tin pir ke andoona yee den na ndetka final na poids lourd fa poids moyen kena ref ka andoona yee i ndefetlu ooxaan bugo wasno hanun hakitam may timne keno micro comme ça laya nda jega jeg ka fokata xama fa manga nder marloj fa fajut a jeg ka andona itam mi fo ten i ñowana ñoow ko keke garka li loolu mënuma leen tudd si olof parce que ay ay turu laa leen xam ni mbëru séeréer daan mel li mu doon sol dipu si ngembam ak euh, seru rabal bu ñuul bi mu doon gàccoo eh, eh, waaw léegi ak téere yi nga xam ne def doon ànd ak ñoom voilà loolu yëpp dafa amoon ay tur yoo xam ne mënuma ko wax si si olof ngeen baal ma si atame ak ay laar quoi waaw laar euh, si xar la doon jóge ñu ko doon tàkk ni si si om bi voilà ñal aussi ay pétaaw la yoo xam ne si suufu tànk bi si sebi bi foofu la doon nekk. Oh, voilà <laughs> voilà moom mu def complément bi ngeen baal ñu àgg. Euh, joxal micro bi Ndeye Fatou Adama Jali gisa ak Mamadi Ndiaye Fodé Missane moo tent bopp bi mu am lu xonq am lu zone ndeysaan ak Mamadi Ndiaye arbitre bi nga waaj a sifflé Fodé Missane ak Mamadi Ndiaye ndeysaan arbitre bi sifflé na Fodé Missane ak Mamady Ndiaye Mamady moo leen féete càmmoñ Fodé Missane moo leen féete ndijoor ndeysaan mbokk yi ginnaaw bi ñu jugee fële ca Njaay Njaay Fatick tey ñu ngi fii ci Fimela l'ancien roi des arènes Manga 2 moo ñu fi woo lutte traditionnelle te ku xam maa nga xam ne actuellement moom mooy chargeur de lutte sans frappe deuxième vice président ndaysaan moom moom président Manga 2 ñu ngi noonu ci combat bi ndaysaan ba tey dara xewagul ci ñaari xale yi ndaysaan Fodé Missane Ndaysa ak Mamady Ndiaye ñu ngi noonu ñoom ñaar dara xewagul Ndaysaan Fodé Missane ak Mamady Ndiaye Ndaysaan Fodé Missane ak Mamady Ndiaye Ndaysaan ndeysaan ñu ngi noonu Fodé Misaan ak Mamady Ndiaye ndeysaan ñu ngi lewaatoo dara xewagul Mamady lal na tànk bi Mamady lal na tànk càmmoñ bi lu muy nduru Fodé daw na jëli ko ndeysaan xoolal Mamady ni muy bëree ndeysaan Fodé misaan ak Mamady Ndiaye ndeysaan Mamady daw na wala Fodé daw na wër ko ndeysaan kële jàpp nañ tànk ba fu muy mujj génn na ca ndeysaan Mamady Ndiaye ak Fodé Misaan ñu ngi noonu ñoom ñaar ba tey ci compétition bi ndeysaan Mamady Ndiaye ak Fodé Misaan ndeysaan ndeysaan Mamady daw na jëli ko Mamady ak Fodé Missane ñu ngi ci combat bi ba tey ñoom ñaar ndaysaan mbokk yi ñuy seetaan ci wasaara lamb mbokk yi ñu ngi fii ci film laa tey ndaysaan Mamady Ndiaye ak Fodé Missane ndaysaan Mamady ak Fodé Misaan Mamady jël na Fodé jël ba Fodé jël na ba dina ko daan yanu na ko ci suuf dina ko daan wala déet Mamady daan na laa ilaaha illallah Mamady daan na Fodé laaj Mamady daan na ko laaj arbitre jarul laaj bàyyi ko Fodé daan na la <laughs> ndaanaan la Mamadou Ndiaye ndaanaan la Fodé daan na la daan na la daan na la daan na la bu rëy daan na la jël bu rëy cey daan na la jël bu rëy ndeysaan fair Ndeysaan l'enfant de Diof yor a ngi noonu Ndeysaan moom Xadafi Doudou Sané ma ngay yëngu champion la ci làmb ma nga yëngu ndeysaan tey làmb ma nga ràngoo sengoor ma nga yor ay laar ci loxo ndaysaan ma nga yor béykat boo xamante ne kenn xamul karawu lan la moom Doudou Sané mbër nuyu naa la. fay naa la. sant borom bi baax a baax. loo waaye normal rek sant nañu bopp rek. dégg nga daanu. jëmm mu mel ni. fekk naa la waaye am nga lu la métti loolu. loolu métti la tey ba tax nga ni du ma bëree Fatick ba waa Fatick yëpp ne Doudou Sané dañoo bëgg muy ñëw di ñu bégal saa su ne est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel. waaw mais léegi seen arbitre yi ñoo nanguwul may bégal seen waa dëkk nañ xoolaat arbitre bi foofu loolu kese laa am leen di ñaan quoi mais xam nga du benn yoon yàgg na di am kon itamit Sëñ Fallu daa nekkul sama wërsëg rek waaw amul fa. ay film la lan moo fi xew. xam nga ko lamb. waaw noo ko noo ko lamb joo xamante ne gis nañ Doudou Sané ñëw nañ sele léegi éliminé nañ ko mu mel ni compétition bi nu muy gën di dem muy gën di am yaakaar ci Doudou Sané lan la. waaw sant borom bi bu baax a baax di ñaan suñu borom rek mu may ma ndam bi ma jëm bu ko Diofior loolu kese lay ko quoi di jaajëfal sama fans yi di jaajëfal ñëpp ñu ma sopp yëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaanal samay waajur nag suñu borom may ko wër ak ah, gudd fan quoi ba ñu fekkee suñu njëriñ bu baax a daa am lu ma seetlu ci aw buñ lay laaj dal gi ngay àndal yar gi ngay àndal te boo duggee ci digg géew bi doon gaynde loolu lan non noonu la ñun dañ ñoo yar ay kilifa ñooy ànd ak ñun il faut cër bi tamit ñu leen ko jox waaw lépp ñoom la ñun dañuy appliquer rek billaahi. bonne chance. merci beaucoup. ndeysaan Doudou Sané la. waa mais mbër. bu baax. namm naa la. maa raw. maa yaa ngi am jàmm. may sant yàlla bu baax. bi. sant nañu baax baax. bi mooy sa ñaata premier tour. Ah. Euh, palmarès demi-finale. di ñaan yàlla may ma jël ndam tey. ndeysaan dafa mel ni tey da nga décidé ndax gis naa ni ngay def champion yi. waaw ñun ay mbaru arène lañ ah, dañoo am combat ak Youssou Ndour depuis daaw corona bi tax bëree wuñu kon dañoo am droit génn ci àll bi bëri ji mbawaat pour maanaam. Youssou Ndour man bu per baal. Youssou Ndour per koy def moo ko mën quoi boo toogee da ngay fàtte moo tax ñu ngal yaram bi dañuy fo rek di ñaan yàlla may ñu jël ko. ku dëkk lamb jooju. Ah, Mohamed engagement Abdoulaye Ndiaye. Ah. ngi koy waajal. waaw ñu ngi bay ñu ngi compétir daal ma ci yow état de forme bu garaaw macha allah. non entraînement dañu retard nag wax dëgg yàlla ndax dañoo newoon ci liggéey mais saa yu commencé waat nag ba doon compétir bi di ñaan yàlla may ñoom rek incha allah. mais baayam Mamadou boo ko gisee xam ni doomi mbër la waaye ma ngay jëfee làmb ni mu toll kàttan gi ëpp na noonu ni mu toll mën-mën ki ëpp na noonu moom Mamadou Ndiaye ma ngay songoo ay gàllaajam timikaayu mbër a ngi noonu ndaysaan ak am solo ci mbër ndaysaan daa bokk ci liy dalal xelu mbër lii timikaay ndaysaan nga laal butéel laalaat beneen butéel ndaysaan bokk na ci liy dalal xelam nga takk gàllaaj fii takk gàllaaj fële bokk na ci liy doxal ta xelu mbër en tout cas daal mystique yi dafa bokk ci làmb mbër bu jotee avance mystique lay njëkk a xalaat ndaysaan buy bëre mystique lay xalaat su noppee mystique lay xalaat gis naa ko fi mu daan ñaari jël yoo xamante ni ay jël ndaanaan la loola lay wan ni Mamady Ndiaye du gan ci làmb tàkkusaan bu ne bëri na ko fi champion la ci làmb moom Mamady ndaysaan ma ngay laal butéel yi ndaysaan ma ngay laal butéel yi ndaysaan ma ngay laal butéel bi Mamady nuyu naa la ndaysaan ma ngay laal laal na ci yaram ba ma léemu ndaysaan ma ngay jël butéel benn par benn ndaysaan ma ngay laal raayoon ci kanam gi raay ci loxo yi ndaysaan raay ci tànk yi Mamady nuyu naa la ndaysaan nee na ma après <laughs> ci lamb la bokk nangul naa ko ko moom Mamady Ndiaye ndaysaan da ngay cadré ñaar ñëpp am Mamady Ndiaye ak Doudou Sané am fii délégué ak Soudiane ñooy final lese bi délégué ak Soudiane ndeysaan ñoom ñaar ñëpp Soudiane moo ngem moo ngem lu xonq li wan leen ginnaaw ndeysaan ak délégué ñu ngi noonu daw nañ jàppante ndeysaan jàppante na ñoom ñaar ndeysaan wàllu bee Mamady Ndiaye arbitre bi sifflé na moog Doudou Sané Doudou Sané ngi jàpp Mamady ndaysaan ñoom ñaari champion lañ Doudou Sané Mamady Ndiaye ndaysaan Mamady daw na jëli ko ndaysaan délégué ak Soudiane ñu ngi ci combat bi ñoom ñaar ba tey ndaysaan Soudiane daw na jëli délégué ndaysaan Mamady Ndiaye Doudou Sané luñ nar Mamady daw na jëli ko Doudou Sané bañ na ndaysaan Doudou nga taxaw di ko déglu rek ëmb di dox ci kawam lentement ndaysaan Soudiane ak délégué arbitre bi atteewaat na ñoom mooy final lese bi ndeysaan Doudou Sané jàpp na Mamadi ndeysaan délégué ak Soudiane ndeysaan ñu ngi noonu Soudiane ak délégué Mamadi Ndiaye ak Doudou Sané ndeysaan ñu ngi ci compétition bi ba ñoom ñaar mbokk yi ci Fimela jël na ko daan na ko daan na daan na ko Ndeysaan délégué daan na Soudiane Ndeysaan délégué daan na Soudiane délégué daan na ko li Ndeysaan Doudou Sané ngay bàkku Ndeysaan arbitre bi lu mu wax ak ñoom ñaar avertissement avertissement Doudou Sané avertissement ndeysaan ñu ngi lewaatoo mu ngi dox ci koom Doudou Sané Mamady Ndiaye ndeysaan ñu ngi noonu mbokk yi ñu ngi toll ci demi-finale yi Doudou Sané Mamady Ndiaye ndeysaan Mamady fàqat na ko Doudou wuy waaye du yomb mbaa doole du feeñ Mamady daw na jëli ko Doudou Sané Mamady Ndiaye ndeysaan Doudou Sané Mamady Ndiaye Doudou Sané ngi dox ci koom ngàdd na ko Mamady ci làmb la bokk ngàdd moom ci làmb la bokk ndeysaan ci làmb la bokk ndeysaan ngàdd moom ci làmb la bokk ngàdd tee dafa ànd ci làmb ñuy bëre lutte traditionnelle xam nañ ngàdd ndeysaan Mamadi Ndiaye Mamadi Ndiaye ndeysaan ak Doudou Sané ñu ngi noonu ci demi-finale bi Mamadi Ndiaye Doudou Sané ñu ngi ci demi-finale bi Mamadi Ndiaye Doudou Sané ñu ngi ci demi-finale bi Ndeysaan Mamadou Ndiaye Doudou Sané mbër Ndeysaan Doudou Sané Mamadou Ndiaye Ndeysaan arbitre bi attewaat na ñoom ñaar tey làmba garaaw Doudou Sané Mamadou Ndiaye Ndeysaan Doudou Sané Mamadou Ndiaye Johnson ak Bébé Diouldé Johnson daw na jël Bébé Diouldé Bébé Diouldé génnee na ko ndaysaan ñoom ñaar du yomb Bébé Diouldé na jëli song ba baaxul ndaysaan fee ñu ngi ci Doudou Sané ak Mamadou Ndiaye ndaysaan Doudou Sané Mamadou daw na jël ko Johnson ak Bébé Diouldé ndeysaan Bébé Diouldé ak Johnson Mamady Ndiaye ak Doudou Sané ndeysaan Bébé Diouldé ak Johnson Mamady Ndiaye plaqué nañ ko ndeysaan Doudou Sané plaqué na ko mu wër Doudou Sané Mamady ngàdd na ko ñu ngi ci saako yi mu lu mu nar lu mu ndeysaan mu ngi koy mu ngi koy forcer Mamadou Ndiaye di nga jël avertissement saako yi fekkiwul kenn yaa fekki saako yi waaw waaw disqualifié nañ ko disqualifié nañ Mamadou ndeysaan disqualifié nañ ko ndeysaan Johnson ak Bébé Diouldé ñu ngi noonu ci combat bi Johnson ak Bébé Diouldé Johnson ak Bébé Diouldé Ndeysaan Johnson ak Bébé Diouldé Ndeysaan ngàdd na Bébé Diouldé mu wàcc jol nañ ko waaw daan nañ ko Johnson daan na Bébé Diouldé Ndeysaan daan na ko. ñëpp xam nañ ni daan ah man daanaan la. waaw bi mu mu déroulé ba léegi képp koo xamante ne ndaanaan la rek mooy dem fi waaw waaw billaay wallaay noonu la demee kontaan naa bu baax a baax yàlla rek moo xam dinaa def li mu mën daal. jaajëf kookoy Johnson kaay ma. ci loolu la mun a wax man man miy entraîné ak moom xool ma rek parewu ma physiquement man nga xam ne poulain am la gars yi nañu bàyyi wax ji mbër bi daal liggéey ba sonn combat ku nekk xam na combat ak nu muy tëddee nañ bàyyi ba ñu gisee mbër rek. gàkkal ko ne ko ne daa yooyu Eumeu daa entraîné ba dee. ñu gis ne staffam ñoo ko téye ñoo ko bëre mu bëre mais bi mu paree da koo rëcc. staffam nga wax. kon jeex na waaw. mais Doudou nga dem final Doudou démb yaa finalu tey nga finalu waat yëg-yëg bi lan la. finalu démb di ñaan borom bi may ma rek. xam xam naa ko. Ah. waaw diggante ak Mamadi lan la. dara. gis naa ko bi làmb ji jeexee mu am ay kàddu yu la doon dénk kàddu yooyu lan la lu mu la doon wax. non non loolu amul problème xam nga mbër bu ndaw moom boo amee doole da koy wane pas di xeex ak mag yi quoi loolu yaree ñu ma noonu Mamadi sama grand la moom moo mun a dóor mais bu nekkoon sama mërëm moo ma dóor wala keneen moom daa am fu bëri fu ñu jaar maak moom waaw. ma gis Ablaye Ndiaye ñëw dugg ci biir di wax ak Mamadi mel ni daf ko bëggoon yombalal combat. non yoon la aduna la. ñoom ñoo xam lu ñu doon wax waaw. kon bonne chance. waaw ok. Sane Doudou Sané ngi noonu. l'enfant de Diofior. ino ke i mbarno donc mbere maafri yo sportivement onum jegna o o ande roog coɗomo ten onum rooga xaƴna o ndam o ande xañamo o feet o maaf o kenof donc keke ka nu o njiriñ teen ka nu mbaago jeg teen xalal ka nu mbaago mbi teen foɓet kene nu gañe a neew neew neew investir waga o jiko ceeb waa waga fi maraissage paap ke nuun a njega qol nu mbaga mbi'ik lakas paap ke nuun a njega naak nu mbaga mbi'ik élevage donc nu saɗax no nuun i mbita nu mbina discipline fani to i yakara yakara nuun de i yakara nuun yakar ne nuun koy ba nu tasin merci beaucoup chef de l'État ñu organiser drapeau chef de l'État Fatick jël na ko juróomi yoon yu toppalante mais ñaari at yi dañ ko perte te li ñu li tax ñu perte ko waa Fatick ñooy dem di la bëri ji feneen ñëw di daan waa Fatick loolu dafa war a jeex loolu dégg ngeen li may wax message bu fort la ministre de des sports Fatick la dëkk kon ñu di teg euh, drapeau chef de l'État beneen région di ko jël bu dul Fatick na ngeen ci taxaw def ci seen jom ànd ak waa Fatick yëpp li ngeen def rafet na te lii bu ngeen koy boo chef de l'État ñu jël ko que le arbitre bi ngi waaj a sifflé ci ñaari mbëri ndaysaan laaj na ngañ seen laaj na ay superviseur laaj na Doudou Sané arbitre bi sifflé na ndaysaan ngañ seen bu njaga ak Doudou Sané ngañ seen moo leen féete càmmoñ Doudou Sané moo leen féete ndijoor ndaysaan ñu ngi jàppante combat bi dina gaaw ngañ seen Doudou Sané ñu ngi forcante ngañ seen Doudou Sané fàqan na ko ngañ bañ na Doudou Sané fàqataan na ko ngañ jël na tànk ba Doudou bañ na dafa diis ngañ Doudou daw na jëli ko ngañ dawul ndeysaan ngañ melul dara Doudou Sané na ko kaay ndeysaan ngañ seen Doudou Sané waa mi wóolu na boppam de wan mbër di dem ah lii doon ngañ seen Doudou Sané tey la dimanche 11 avril 2021 ndeysaan ñu ngi fii ci Fimela Manga 2 la c'est roi des arènes moo ñu fi woo il est 22h49 minutes dox ci diggante Doudou ak Ngagne Sène ñoom ñaar a ngi noonu Ngagne mu njaga ñaaw démb moo jël fële ca Mbour Doudou Sané moo finalu démb fële ñàkk ko diggante ak Waly Baye Waly ndeysaan ñoo ngi noonu ñoom ñaar Doudou Sané ak Ngagne Sène ndeysaan kii daa finalu démb jël ko kii finalu démb ñàkk ko Doudou Sané daa finalu ñàkk ko Ngagne Sène finalu jël ko ndeysaan Njaay Njaay Fatick démb Doudou Sané moo fa finaloon daw na jëli ko Doudou Sané daan na ndaysaan Doudou Sané daan na ko Doudou Sané na final bi ci kaw ngañ seen Doudou Sané jël na ko ndaysaan Doudou Sané jël na final bi ndaysaan fii ci film laa tey Doudou Sané jël na ko ndaysaan Doudou Sané yi loolu lañ leen fii ci film laa di leen jaajëfal fu waay mën a nekk ci réew mi moo xam nga ne bitim réew te safoo wasaare làmb di leen jaajëfal bu baax di am kontaante ak mbégte di nuyuwaat bu baax a baax le grand promoteur Idaly Gningue lii ma sañse ci kaw ba ci suuf moom moo ma ko jox ma koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla na jàmmam yàgg moom Idaly le grand promoteur mbokk yi di leen jox di daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf.